waaw man man maa ngi tudd Ibrahima Iyane Thiam di doom ci Mourchid Ahmed Iyane Thiam ànd ak sunu mbokk sunu ñëpp ay sëtu maam Samba Thiam ah, di gërëm nag ñu fi nekk ñëpp waaw kàddu yu njëkk yi mooy kàdd yi moo xoon sànq rek ay kàddu sant la ndax ñoom ñoo yëkkati jox ma lii waaye li ma waxoon sànq rek yëfu ñun ñëpp la du yëfu sax maam Massamba Thiam yëfu Sénégal la donc liñ ci war a def rek danañ ko def ak diisoo danañ ko def ak xol danañ ko def ak xel ngir juumte bañ a aussi am euh, ñu ànd ci nag di ko rafetlu euh, topp ci suñuy gannaaw mag topp ci su parce que am nañ fi tamit ay rakk am nañ fi suñuy maam yooyu yëpp nag eh, li nga xamante ne ñu ngi ñu koy jàngal ñu jéem ko def dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin waaw ndax yëf yi boo xoolee sunu maam ju njëkk ja moom naar la woon ñu koy wax Mahmoud Chami jóge woon ca dëkk bi ñuy wax Syrie léegi eh, ñu ko doon wax Chami Euh, boo ko xoolee moom moo doon sudan euh, astafurlah Beytul Mahfouz Syrie Irak iraan dëkk yooyu yëpp moom lañ doon saami sunu maam jooju nag moo ñëw fii doon jàngale alxuraan jaar ca Tombouctou ci Soudan daal di jóge foofu daal di yéeg Guinée Conakry fu mu jaar nag dana fa jàngale ay at euh, bi mu jógee foofu daal di ñëw ci dëkk bi ñuy wax Ngenaar Ngenaar nag moom lañ doon wax après dëkkub Thiamène Thiamène boobu nag mooy tay ba ngeen bi nekk fii waaw sunu maam Masamba Thiam boobu nag ñu ko naan Mahmoud kooku tey moo waral ba ñuy wàcc sunu maam Masamba yi ndax buñ ko fi limee ñun ñooy dixième génération euh, ñoom nag lu ñuy def ñun mënulu def lu dul di ànd ak borom xam-xam yi di ànd ak sunu mag yi ak sunu rakk yi ngir defar loo xamante ne du wax naa ko fi sànq du sunu yëf rek yëfu Sénégal la kon lu ñu maanu ci ñaan sunu borom bi mu may ñu ci am ndam ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin loolu moo solo euh, ci yëf yi ok ci ci laaj bu gàtt rek moo nekk li nga xamante ne nii mooy li ngeen war a sóobu ginnaaw élection waaw euh, loolu xam nga bébé bu juddoo dana raam bu raamee jàng dox bu doxee daal di màgg bay jël yoon kooku boo ma ko laajee léegi foog ñu diisoo si suñu biir ndax danañ def ay réunion danañ def ay waxtaan ci borom xam-xam yi xool yan jéego la ñuy teg jéego yi incha allah bu jotee ci ay réunion ci ay rapport danañ ko joxe waat information bi waaye li ëpp solo rek mooy ah Mame Massamba Thiam sëti fédération bi judd na mi ngi judd ban ci bésub dimanche dimanche ñu koy wax li mu axat muy premier jour ci bésub euh, ci heure u tàkkusaan kon ñun mënuñu def lu di nangu même yéen ñi fi nekk ñëpp ak ñi fi nekk ñëpp ñu ñaan yàlla liñ fi ñaan yëpp mu may ñu ko ñu dugg ci nag def ko ci jàmm ak salaam ñu ñëpp ñu bokk ko gëm naa ni sax ca nga bokk li suñu président wax foog naa ci loolu lañu topp mooy ne dañu war a mit ah seet naka lañu war am nga liggéey bu mit la foog ñu seetaan toog waxtaan ba ñu d'accord ban jubloo lañ war dem ñu def loolu war naa mooy man kañ xanaa affaire bi am doole rek loolu liggéey bu métti la foog ñu def ko waaw ngeen jógee lii euh, ah, fi ne yomba bari soo ko seetee pour ne kam xam sam boppa mbooka boobu yëpp doy loolu rek doy na so loolu rek doy na kanaaw loolu am naa li mu yomba bari na so foofu li wax di ngeen gis li war a def <laughs> soit bi jotee hmm. euh, moom mooy moo tax ma ne la affaire yi mbokk la buñ dafa ñu xalaat réeroo bu ñu njëkk ñun xamloo ne suñu mbokk yi fii lañ nii lañ bari Sénégal nii lañ bari Gambie wante léegi xam nañ yëpp dafa mel ni affaire bi léegi dina yomba liggéey bi dina yomba because dañu bari so loolu laa si gis daal one family oui nous rendons grâce à Dieu un sentiment également euh, d'extrême gratitude et de reconnaissance envers le vénéré Mama Samba Cham, celui par qui nous sommes tous, puisqu'il a eu, euh, de par sa connaissance et ses péripéties, eu à faire plusieurs pays qui nous permettent aujourd'hui de constater que nous avons des parents un peu partout dans la sous-région et un peu partout ici au Sénégal. Euh, beaucoup d'initiatives à partir des associations qui œuvrent pour la vie euh, de Mame Massamba Thiam sont créées depuis des décennies. Aujourd'hui, avec euh, feu notre père Mourchidi Yan Thiam et d'autres personnalités comme le colonel Thiam de Kaolack et d'autres vraiment personnalités se sont retrouvées pour créer une fédération parce que on a recherché le mausolée de Mame Samba Thiam pratiquement pendant une décennie. Et ce mausolée se trouve à Mbacké Djolof, dans la, dans l'arrondissement de Sagata, dans la commune de Sagata Djolof. Et donc, aujourd'hui, euh, notre papa avait commencé à initier des ziyaras annuels et à fédérer toutes les associations de petits-fils de Mame Samba Thiam autour de la continuation de son œuvre. Et aujourd'hui, c'est, disons, l'aboutissement de tout ce travail, puisqu'un bureau fédéral a été mis en place à partir de toutes ces associations. Et comme cela a été dit, autour d'un conseil des sages euh, dirigé par Ibrahima Cham Kellel de Chamen avec plusieurs érudits, dont Al-Khali Gaussou Cham, qui vient de Soukouta, un grand village à, à, en avec au moins 75 000 habitants. Et les trois quarts de ses habitants sont des Tchams. Donc euh, même il dans le Conseil des sages et d'autres personnalités telles que Cheikh Tidiane Cham, Borom Kaminbi, et vraiment le ministre Serigne Mbaye Cham également, qui est membre de Et à, à, après cela, nous avons maintenant le bureau fédéral qui est dirigé par le président Ibrahim Yantiam, avec aussi l'ensemble des présidents de structures. Nous les retrouvons à Touba, à Darumousti, à Tchamen Tategin, à Tchamen Gawan, à Mbake Djolof, à, euh, à Chamen Walo, à Kaolak. Vraiment, c'est des associations un peu partout. Donc, comme ils l'ont dit, nous allons nous retrouver très, très prochainement pour établir notre plan d'activité, mais surtout pour préparer la grande ziara annuelle qui a lieu euh, chaque mois de juin. Et donc, nous allons nous retrouver avec le bureau pour voir les nouvelles orientations. Forcément, c'est d'ailleurs pourquoi il y a une commission scientifique qui est dirigée par euh, Mamake Bodian, qui est un grand historien euh, de la recherche et qui est en Gambie, qui a déjà eu à nous sortir l'arbre généalogique Nous savons, toutes les associations qui sont membres savent au jour d'aujourd'hui jusqu'à Mam Sambacham quels sont les liens. Dans la perspective, il est également dit qu'on devrait voir à partir de Mam Sambacham et remonter quels sont les liens puisque ça a été rappelé, nous avons notre aïeul qui vient de Chami. donc euh, c'est pour dire que euh, d'abord Mame Massamba Thiam ce sera de la recherche ce sera de l'histoire euh, ce sera euh, en tout cas un approfondissement de tout ce que nous avons comme vie et œuvre mais ce sera également euh, une référence qu'on pourra servir d'abord à nous-mêmes et aux générations et à toutes les nations et pourquoi pas à l'échelle internationale comme vous le dites. loolu national bi moo tax a jóge fii ñu wut neneen nuñ ko jaarale waaye fii ba bufti bi di wax soog rek